wëmalaate woon naa. allah yàlla mu di ya waxtu waxtu wa ma màggee. allah wa xira ba den may yéexee di. asalaata julli. masalaatu bi maa ngi ma. fa kuntu nekkoon naa. uraahee de sammuhanteel. awqaata salaati waxtu julli. wa haadir te may wattandeku. min masabil fawaati ci bakkaaru faat. maa jawbil falawaat ànd ak dagg xàll yi mm. wala wil xalawaat ak foy féex mm. dama daa te waxtu daal bu jotee mm. lu ma mën a fekk rek ma bàyyi ko julli su ma nekkee ci yoon damay taxaw julli wéy su ma nekkee ci sumay mbiri bopp yi fi jot itam la ma doon soxla woon noona dama gis ne julli bu gën a ma bàyyi ko dem julli fa kuntu nekkoon naa maa jawbil falawaat mm. ànd ak dagg xàll yi mm. wil xalawaat mm. ak fo ci jamono yi fiya nekkoon naa quraaye de sàmmante aw xat salaati waxtu julli yi waa système wasandeku min masamil waati ci bakkaaru fa way saara waxtu bu ma àndaale féere xalatin ci laxam aw xalaltu wala ma wàcci bihi la tin ci wàcci waay hmm. marhabtu hmm. ma yaatal mooy ma tatagal hmm. bi sawti daaye ci baatam aji woote ji ilayha jëm ci julli waxta daytu tema roy bi man ci koo xam ne yu haafidu dana mu sàmmanteer ki yu haafidu dana mu sàmmanteer ande aji julli selon gu baax a baax mu ne saa su ma dégga nodd hmm. moo xam damaa dal ci ak kër hmm. wala sabo damaa ne ci yoon hmm. li yonent bi wax ne ku ko def dañ la bindal junne junne yiw faral la it ñaari junne junne bàkkaar yëkkati la it ay junne daraja danaa ko def ndax boo déggee nodd nga wax marhaban bil qaa'ilina adlan marhaban bi salati ahlan mm. dañ la dañ la ja bindali tiyaabo mm. faral la jay bakkaar mm. yëkkati la ja daraja mu ne lii naa ko bàyyi xel su ma déggee mu fekk ma ci yoon su ma déggee mu fekk ma ci baax waaw kuntu nekkoon naa mana way saara waxtu bu ma àndaalee fi rihlatin ji laxas aw xalaltu walla mu wàcc bi hillatin ji wàccuwaay marhabtu matatagal bi sawti daaye ci baatab aji woote ji mm. ilayha jëm ci julli mm. mooy marhaban bil qailina adlan mm. marhaban bi salati ahla waxtu day semoray man ci koo xam ne yu hafizu dana musammanteer alayha ci julli fattafaqa dal di dajjal xiina daqaltu waxtu wa ma tabbee taflita taflit su ma demee ci dëkk bu ñuy tabli tali dajal hmm. an sallaytu ba ma julliyaat hmm. ba ma julliyaat hmm. maa sumratin ànd ak mbooloo ma fa dese bi ñàkk mbooloo mi ma bokkal julli timit xam naa amuñu dara daal falam maa xatay naa ba ñu jeexalee asalaata julli gi bañ jullee ba àggal wa asmaata wa asmaanaa te ñu dogu alin bilaata génn xam ne fi mu ne dem ci yitte yi rek moo de wa mm-hmm. ida qudiyati salaatu mm-hmm. fantasiru fil ardi mm-hmm. wabtahu min fadlillah donte jumaa ko tax a jógi julli gum mën a doon pare noonu la waas maanaa te ñu toog alin bi laata génn biñ jullee ba pare ba gis ne fi ne moom mën nañu dem ci yitte yi barasa génn na seyxun ak ak góor foofu la genn góor gu mag génn baatil laqwati kuraaji feeñ ci faali hmm. mooy feebaru paralysie hmm. mu doon góor gu xam ne wéradim lu bis la hmm. dafa mel ni feebar boobu ñuy wax laqwa moo ko jot baree genn wet damin gu wa jagadi lay def baalil kiswati kuraaji rapp ci koddaay wal quwwati ak kattan yére bu rapp la sol ni muy doxee itam ku néew man man <coughs> Faqal mu ne. Hmm. asamtu giñ naa. Hmm. ala man ci ko xam ne xule xabindir na ko. Hmm. min tiinatil hurrati. ci ci bani ga gore. mooy cosaanal dogoon. wa tafawwaqa te mu namp. darral asabiyati sawam asabiya. asabiya mooy ponk li mooy ponk li sa juddu comme kii mel noonu hmm. illa ma takallafa na toogoo rek hmm. lii ñaal ma lufsatan sax hmm. waxtamaate mu déglu min li ci man nafsa tontu mu ne damay ñaan gor bu ngoram sax mu may ma tuuti jataay dafa am kàddu yu maa ngi ñaan gor bu ngoram sax daal mu may ma tuuti jataay dafa am kàddu yu bëgg sax asamtu giñ na hmm. alaman ci ko xam ne xuliqa bindeef na ko hmm. min dogor hmm. wa tafawwaqa mu nàmp darral asabiya soowam asabiya mooy fonk li nga doon illa ma takallafa na togoore lii ñaan mu lu satan sax wa mu déglu min ni ci man nafsatan summa la woo topp ñeexal na ko alxiyaaru tànn min baadu ci gannaaw man li ma bëgg mooy nañ ma déglu ma wax rek su ma waxee ba àggal na warte wu ma kenn ku nekk ma wax nu muy def wa bi yedi yi nekk na ci loxoom albaslu joxe wëral du ak delloo su xamee lu muy joxe man koy joxe mu joxe su man da joxe itam mu wax ne am na gàtt rek hmm. waaye man li ma bëgg mooy nañ ma déglu rek hmm. parce que ñaan kaf la hmm. kii maye moo ko dëggal na dama ñaan rek mu ne fan xada dal di fas la ko ñaal ku al qawmu nit ñi alhu ba fereng lay nit ñi def lu toogal wala saw ñu sax absala ruba bi mu ne kemi tundu ñëpp bokk dal falamma anasa ba mu yéegee husna insaatihim rafet ak seen cellantu mm-hmm. warasaana taxasaatihim ak diis ak seeni xel lëng seeni xel mm-hmm. bi mu gisee hin wa rafet wiñ ko déglu mm-hmm. ak definu nitee wiñ def mu xam ne ñi ay nit biir lañ xaal wax na daf leen wax ne yaa ulil absaar yéen borom gis yi arraami xayude way xool yéen ñi nga xam ne seen bëri yaa ngi jënoon mm-hmm. seen bëri dara newu ci mm-hmm. yéen a may xool mm-hmm. wal basairi tey borom ji si xol yi araqi araiqat yu da way xéeme te aussi ngeen nekk nit ñu nite day boromi xel yu sotte sotti te seen defen loolu la wane ama yoo xam ni xanaa du doy ala yaanu jàkkaarloo anil xabari wali solo defe naa nit dum gis hmm. jaratul ñi ko ko nettali hmm. ndax nettali man da gañe fekke hmm. te gis na ko ama yoo ni du xanaa du doy xanaa yaa nu jàkkaarlo anil xabari wali solo wayum bi xanaa bi xamle adduhaanu saxat ani naari ci safar defe naa boo seen saxat nga xam ne safaraan naa ñu aan ñu xajal dafa am loo xam ne ñàkk rek la am ku ku ko gisee war ngaa xam ne ñàkk dafa am loo xam ne lor rek la am ku ko gis ci ko lor ku ko gisee rek war ngaa xam ne lor seybun bi jaaw layun bu daa ji feeñ kawar goo weex tàll de tegtale màggat woonun ak doxati faadiyun gu daa ji diis ak néew doole goo we soab ngoo xam ne feeñ na ci yëngatu ya mm. wadaa un ak jàngoro mm. waade un judaaji leer mm. ak jàngoro jaray gen wàlli yaram inim nga ji wal batinu batin bi faati un aji gàcce wala xam naa sax yenn yi moom jëfade ko ci sax ak sura sa bopp baax na ci waaye dafa waaye nag loo ëpp tuur dafa ne ma ne su wal batin waade un aji feeñ la un aji gàcce la ee eh, wala qad te nekkoon naa wallahi hmm. mi man de bokk ci ñi nga xam ne hmm. malaka moom nañ wala falo woon nañ buur hmm. wa maala te ñu bari alal te li ma leen di xamal mooy su fekkoon xam baat ci say biir yi bokk leneen mënu koo topp dajale alal leneen mënu koo topp konoon de du ngeen ma xam de ndax mos naa jekk de wa waliya temu méngoo mm. wa ala temu ñoñu ñu mm. bëree bëri seen kilifteef ci suma loxo la nekkoon ñu mm. bëri maa leen bootoon warafata temu konte wa anaala te ñu maye yàgg naa jëriñ nit ñi itam wa wasala temu jokk wasala temu songe yàgg naa am dooley toral teral nit am itam dooley toroxal nit bu baax boo ko xëyoo duma mënoon hmm. naa ko duma bu baax fawatoon hmm. nata fi hmm. mawdeen sayfi biloola mudirun kawadeen sayfi fi mawdeen nata mu ne amoon na ñaari doole yi te xamoon na itam nu mu ko daan jëfandikoo waaye falam tasal dañul aljawaahi wa jaali hay tasat dama xett mooy dama got waaye léeg-léeg rek luy wàññi nit daana jot ma mm-hmm. benn muy ci fàgguteef bi mm-hmm. wala muy ci jëmm ji don mm-hmm. xatta xam bi ma got wan na waa ibu dañul xew-xewi jamono yi tan xitu dama xet ay xew-xew da dikk rek te jël li ma am xattal wagru ba tàgg mi tey mooy sama kër afrun aji wéet la dara newu wal këpp téenkali sifrun aji feex la sama loxo dara newul hmm. wa siyaaru mandarga bi hmm. durun lor la hmm. ku ma gis lor rek lay mën a gis bi murun aji weex la dund bu day wax lay dund wasibiyatu gune yi yetta daa xaw na danañu xawu mooy danañu yooxu mina tawa ngir xiif njaboot su ndaw laa xame su xam ne ñu ngi yooxu te xiif moo leen di taxa yooxu wayata man naw na te danañu mébét mu soosotan na waa ya biti saal talaw maccitu ko sax ku leen ko jox ñoom bëgg nañu ko walam aqum taxawuma nag haadal maqaama bile maqaam bile taxawaay assaina budaaji ñaaw waa sif tamay wuññi lëkkum ñaar leen mm. attafaina yu ñu suuli mooy yu nëbbu yi illa baadama suqiitu mm. ndara gannaaw bu texe haadiloo teema mm. wa luqiitu te joteef ma ci feebaru lapp wa mooy faali mm. wa sibtu te ma bi jaaw mi maa ngi leen laqiit dajee naa ak moom wax dëgg yàlla toog naa sama kër nangam man nangam ku ne ah di de wuññi loo xam ne man naa am daal fañ ko daan nëbbu man naa ne loolu laa def waaye lor gee ci àgg na walam aqum taxawuma haadal hmm. maqaama bi la taxawaay hmm. assaa'ina bu daaji ñaaw hmm. waa sif damay huññi lëkk ñaal leen addafa ina yu ñu suul illa baadama suqiitu ndare gannaaw bu texe haadi loo teema luqiitu te joteef ma ci feebaru faalij mooy laqwa sibtu te ma bi jaaw mi maa ngi li nga xam ne laqiitu daje naa ak moom waaw Faala la de. mu ne lii la wax ne daal sama dundu bi de aku gën falaytani lam akun baqiitu hmm. falaytani yàllante woon man lam akun du ma nekk baqiitu dedet moo hmm. ko batte woon su ma taawuha topp mu binni mooy mu wax ah taawuha asif binni aji mu ne ah mel ni ku jaaxle lool waan soda mu saddee bi sawtin ci baat daifin bu daaji doadi mu commencé de wéy baata wéyee ci waxinu ku néew a néew hmm. ma asko ila rahmani subhanahu hmm. taqalluba dahri wa odwaanahu hmm. ba mu xaag hmm. asko maa ngi tawat hmm. ila rahmaani jëm ci borom bi subhanahu tudd na ma sellam taqalluba dahri jàllar beku jamono wa odwaanahu ak nooneel ak jamono jamono jox gi ma jox gannaaw ak nim ma sonnale hmm. maa koy jàmbatal yàlla subhanahu wa taala hmm. wa haadisaatin ak i xew-xew hmm. yoo xam ne xaraat dóor nañ fëgg nañ marwati sama doj malu xeet doj lay doon buy mel xam mooy dal na bu metti ci man wa te ñu daane ñi mabbu maj di sama tedd wa bunyaanahu ak tabaxu sama tedd ga hmm. ay xew-xew yoo xam ne la ma daan lañ ma daan nawee hmm. néewal nañ ma ca doole hmm. te ñu ñu yaan mooy ñu foq ñu fàq xooti sama bant ñoo fàq sama bant mooy ñoo ma tàggale kardan kartan waya kaay leen seet la man halaku koo xam ne tastasiru dana damm dana baq ala daas ay xew-xew axsaanahu ay bànqaas waam halat ñoo beegoorloo rasmee son wàccuwaay ñoo tax sama kër beegoor xataa jalat bañ génne ñoom xew-xew yooyu min rasmee ci sama wàccuwaay al mum hili buraaji beegoor jisaane woo ay janaxam hmm. ñu jël li ma am hmm. bu suma kër janax ne atu fa hmm. ndax fu dara nekk lay nekk man a am fu mu fa làpp waaye nii boo ne leen de kese janax amul fu mu fay làpp janax du fa waa xalaat bee koor la bee kooral nañ ñoom xew-xew yooyu arab ne sama wàccuwaay xataa jalat ba ñu génne ñoom xaw-xaw yooyu min rafee ci sama sama wàccuwaay mm. as moom fili gudaa ji bee koor ji mm. saana ay janax mm. waxaadarat nii bàyyi nañ ma ñoom xew-xew yooyu xaayiran ma daa ji gëlëm xamu fu may xenu xamu nu may def bàyyiran daa ji lambu ma mel ni mas ndir moo lambu ñàkk xorom ci nit ñi ndax ñi li ñoo def buñ gisee ne dana la rek ñu mm. respecté bu kaabiru maa ngi jàng ko en tête mm. alfaqara ñàkk mm. waas jaana waa ki njàqare bu ne maa ko en ñàkk ak di ñàkk min baadi maa kuntu ci gannaaw bu ma nekkee axaa sarwatin de borom ak koom goo xam ne yasaabu dana mu diri Addaana wa ay labiti mbubam. Mm. fi ni amati ci xéewal. Mm. te lii bala maa dal. Mm. fekk na ma xamoon koom. ma koom. ba xam si rek ngay xam. ma kuntu ci gannaaw bu ma nekkee. axa sarwatin de borom koom. yasaabu dana mu diri. Addaana wa ay labiti mbubam. fi ni amati ci xéewal. yàq bitu dana dajjitu mooy dana làmbutu mm. alaa koona way xaari mm. awraaqahu ay xaalisi xobo mm. koo xam ne yàgg naa soxla du am solo wayahmudu te dana sant asaaroona way reñaadi niraanoo ay safaray ganale koo xam ne yàgg naa leyal ku tumara fa asbaha mu mujj al yawma tey kaan daanaka mbir lam yakun nekkul aanahoo di dimbale ko addahru jamono alladi jamono mi nga xam ne aanahoo bëtal na ko jamono mi ko mi ko mi ko xool bët boo ñaaw bali ko dal dal ko nii kenn foogut fan ne boo ko gisee doo foog ne mos na koo dimbale waaye nag nga nim demee man sarrahoo samanu saadu asmaanu ma di nekk la taxsabanna sururan daiman abadan man sarrahu zaman saatu asman xam naa doo la ca nekk ba ba bu xëy al yawma tey kaan daanaka mbir lam yëkkun mos da nekk aana wa de ko dimbale addaaru jamono alladi jamono mi nga xam ne aana hu batal na was warra te jéng man kaana ku nekkoon zahiran daaji ne meeku hmm. lewoo ñaal ko hmm. ñu daal dikk ci moom naan ko faala seet teg hmm. faala yendal teg faala gane teg gisatu ji kenn kenn ande seetu ko kenn gane seetu ko kenn jaddatu bi nayu ko was warra te jeng man ko képp ko xam ne kaana nekkoon na mu zahiran daaji ne meeku lewoo ñaal waxaa ko te sip xaafil orfi aje xaar njëkk xerfaan woo xamam ñi nga xam ne li ñoo soxla ni mooy mu defal leen ndax ñëpp ko bëggoon a xam bu njëkk de waaye tey kenn bëgg ko waaw mu xaafa te sit xaafil orfi aje xaar njëkk xerfaan woo xamam waaw xaafil orfi xerfaan woo su fekkoon te nag lu kalimaat bi waroon bayaan di hmm. nga baal fatan ndax am na waay ndax waay hmm. ndax na waay yax sunu woo ko jàqaloo hmm. maa li nga xam ne yaraa dana min durri seexin ci lor ak góor bu xam ne dahroo jamono xaan ruñ na ko góor gu mag boo xam ne jamono koñe na ba man de jàll doo ko fenn mm-hmm. bu doon lu xam ne xol bu tooy ci yërmande rek mm-hmm. war na ko tiis ndax mm-hmm. am na ci yéen ko ku kum tiisal de ci mu ko gis fa yóbbu ja sawa soosu mu yëral alhamma njàqare alladi njàqare ji nga xam ne xam ma hóoru yal na góor gi ndax jaaxle googu moom a xañ yaram kum ji neexul mu jéem ko sàmm faal fasan ndax waay yar dunu hoo dana ko jàqaloo maa yara li mu gis min durri seexin ci lora góor bu xam ne dahru jamono xaar na ko huruñ na ko foo suyu frija wala mu yëral alhamma njàqare alladi ki nga xam ne hamma hoo ruyal na góor wayut li haa te mu hiwenal asa na mbir alladi mbir mi nga xam ne saana huu ñaawoon na di nga xam saana saana jinaan qaala raawi xaalis nee na fa saba dal jeng mooy soppu aljamaahatu mbooloo mi ilaa an tastasbitahu jëm ci ba mu saxlut ko di tartan ci sa ngir na génne xuba atahu ndaxañ teekom mbooloo mi nag mel ni nag hmm. dañ ko bëgg a enquête di ko laaj kim do dëgg-dëgg hmm. fekk bëgg a xam kim do rek la hmm. watartan fida ak na na bëgg moom mbooloo mi xaqibata gafaka mi daal wax loo ko ba mu waxaat leen lim xam lépp xëy na loolu lañ bëgg fa qaal mbooloo mi daal de wax la wa ñaal mi ne ko xan xaraf naa xam nañu qadra rutbatik kem kem sa daraja war ay naa gis nañu dara mus na tig bari ndox ak sa niir xam nañu ne mustawa bu kowe kowe nga àgg ci aada xam nañu ne itam waasiwoon ittilaada ku bari loo xam qadra ay naa gis nañu qadra rutbatik kem sa daraja mooy kowe sa niir ci aada xam nañ ko waraay naa te gis nañu dara mus na tig mm. bari soo sa mm. mooy ni nga bare loo mm. naa xamal ñu daw xaata soo ba tika cosaanal eh, garab ak sa cosaan waarif naa xamal ñu daw xaata soo ba tika danjaam ak sa cosaan mooy waxal ñu fi nga bokk wax te nga wuññi alisa mu muuraay an nisbati ka wali sa askan mm. dañu bëggoon nga wax ñu nga bokk wax ñu sa askan ee mm. fa arada mu dumóoyu irada mm. e, man dumóoyu koo xam ne mu ni ya na tof na ko bil ianati ci sonna ne mu joxe gannaaw mel ni nit ku xam ne dañ ko teg lu diis a diis aw busira wala bégalee ko bil banati ci bi jigéen arab yi dañ ko bañoon torop ku ci ne am nga doomi jigéen mm. daf lay naqadi mm. ba dana feeñ ci sa cëlmaay mm. waaye ñoom nag ñu ne almalaikatu banatullahi xam nga lu jagadi la wa ida bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ñu ko baax wa ida bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim wajaala mu xaraf yal xanu di rëbb adarooraati lor yi comment boobu njagati su defee daal moom xiima joo mën a xamit dana ko nëxal wayet asubu muy wax upp mooy muy wax cëg min taxayudil muruaati ngir ngeceg mbañ ruus yi jamono bi dama ci gën a sax mooy nit jom rek si góor moos nit ko loolu dikk na ko dama lool war a am jomi bañ ko delloo loxoy neen nekk bi di ko raasoo yoo xam ne kenn xamul fu mu jëm ba mooy baax mooy ba imam Saafi de wax ne yàlla fa nafsi ala malin ufarriquhu ala almuqillina min alil muruati boo gisee ma bëgg de am dara nit ku yiw ku loru ma mën a bokk ci ñu koy dimbale loolu moo tax ma bëgg de am dara inna atidari ila man jaa yasaluni ma laysa indiya min ihdal musibati ndax am na koo xam ne layal ko ak lay wa lu mu doon doon dëgg daanaka musiba la mu ne am na koo xam ne layal ko ak lay wa lu mu doon dëgg musiba la inna atidari ila man jaa yasaluni ma laysa indiya min ihdal musibaati hmm. mu ne kooku moo amoon jom hmm. ko ngeen waroon a xel la wax dëgg su ma sada topp mu sabbe hmm. bi lafdin ci baat saadiheen buraaji wóor wa jarsin ak baat xaadiheen buraaji huruj moo xooju leer wax ne la amruka ma kullu farain yadullu janaahu alladidu ala aslihi kul ma hala hina tuuta bihi wala tasali sahda an nahlihi wa mayit ida ma tasarta alkurum sulafata asrika min xillihi lituli wa turxisa an xibratin wa tasriya kullan sira mislihi faarun ala albatini lawdai duxulu alxamisati bi aqlihi loolu la laamru ka sa dund mooy sama ngiñ maa kullu farayen de bépp banqaas yedullu da tegtale janaawu kottite mooy meññatam allah si sum raaji alaas lii ci cosaanam du càmbar goo fekk meññan moo neex rek mos ga nu ma ba xam ne neex da nga caa daf daf lay tax daf lay taxam karaw dut ne te mbar boo bekk meññeen moo neex mu neex ak yow daf laa tax a xam karaw ga dégg dut ne nit koo gis ay meloom jubu naa ay san nga xam yow xam bokk lekkal hmm. maa li nga xam ne xalaa neex na xiina tuutaa waxtu waa dem na la dikkee bii ci moom hmm. buñ la joxee loo neex lekkal hmm. wala al te bul laaj hmm. asoo da xobu lem xan nax li ci yëmba lem kay boo ko amee ma car rek waaye li jënd yëmbu sàngam ci la man na la caa bañ a fekk ah, lem kay boo ko amee yow kay ma car wante li jëndi nag yëmbu sàngam ci la bawoo man na ji bañ a fekk nag yow itam nit ki gannaaw gis nga ci moom loo mën a jëriñoo mm. jëriñoo ci moom mm. waaye bëgg li jënd na askanu sàngam ci la bokk mm. dëkk sàngam na ah loolu man na ji bañ a man la ji bañ a fekk rek wa mayis isa ma tasar sa boy nal alkoroma sulafata afrika sangara si sa jamono min xillihi ci beneen garab min xillihi ci beneen garab waaw bay na singa na nga xàmmee lii sangara nga xàmmee lii beneen garab jaxasoog nit ñi daal da ngaa fexe xam kay waaja ak ki nga xam ne mas laa doon dana ci li tool yi ngir nga seeral mm. an xibratin ci xam mooy tax nga mën a yëkkati nit mm. teg yëkkati nga fenn mm. watur nga wanteer an xibratin ci xam mooy tax nga mën a suufeel nit teg suufeel nga fenn waaye su fekkee sa ñoon jamono mi wu man ngaa yëkkati ku jarul yëkkati loolu rek la man ngaa suufeel ku yëkkati loolu rek la man dañu jamono da ngeen war a xam wa diinu mabniyun ala tabassuri falyatabasar dul hija walyahdari walyaarif an zamanahu wa ahlahu fa ilmuhu bi saaka akadu lahu adefa wata si ye nga jënde kullan képp sira misli yi njëga kemam ndax itam am na koo xam ne ñu naan nax nañ ko mm. jagut ci moom dara mm. mm. fahaarun gàcce la halal batini ci aji xelu alaw da ayi ku daaji ñëw koo xam ne yaa war a doon ku nit ñi royee ñëw gàcce la moom du xoolul xam ne sa ti tàbbik wàññat fi ànqali yi ci xelam muy def definu xelwaat ah Mm. yow mm. mm. da nga war a doon royukaay ji nit boo defee ni na mooy ñaawee ci yow du ko ñaawee ci bu ko keneen defoon moo tax am na koo xam ne da war di tey ji ne avant run gàcce la alal batine ci aji xelu alaw ga ayi ku daaji xelu doxoolul xamisa di tàbbi wàññet yaa xali yi ci xel Aliki am kii léegi way yi la way moom Abu Zaydin summa qaal mu ne yaa Aba Bakra yéen borom yi kii ak jongaleem ñëpp yéemu ci nim ñëwee waxtana ko mu wurujee leen mu fibee leen fekk seen bi wut ne adaa yi ci rafet ak maa day yi ànd ak jàngoro mm. lu muy wéradi wéradi mm. terewul wax na loo leer mm. wane na fasaatul lisaan wane na manoore ci wàllu adam hatta jamaa ba ñu dajaleel la hoo ñi hal ko dégg nga dégg nga dégg nga xabaayal kubali hmm. wéy na buy lu ñu bokk daan lu ñu bokk hmm. ndaxay maanaam lu ñu denc yu ñu hmm. wa xabaayal subali ak wéy na buy yu ñu kimbeekaayu xam nga da wax ne ay nit la ñuy souvent nag kenn ku ne lax as tuuti rek soo xam ne mën na cee mën na cee teggee dara hmm. ñenn ñaa ngi posu xaale seen loxoy bubb yi hmm. ñenn ñi ñu ngi footaale seen ratasi tuba yi mais hmm. waaye dañ ci dañ ci yoo def yooyu yëpp daal kay kii nañ ko dox ko ba dañ posu woon ci bokkataan ya dañ dugaloon ci war a ratasi tuba yi ba kenn génn nañu xasaje moo ba ñu dajaleel hmm. lawoo ñaar ko xabayal kobani xabayal kobani hmm. ndaxañ téef yu ñu bokk ci bokkataa hmm. wa xabayal subani ak way na buy yu kimbékaay wa qaalu ñu wax lahu ñu ne ko yaa haasa yow e yow mii innaka naka yow xumta wër nga ala rakiyatin ci bakiyatin guraaji néew ji lox hmm. te bi nga roote ni hmm. moo xom hmm. yahaada iyow mi innaka nag yow xum te wër nga ala rakiyatin ci teer bakiyatin guraaji néew ji lox wa taarasta te nga gaalu li xaliyatin ci boobu xaliyatin guraaji teer maanaam xaliya dara la lu ñuy del ci gàtt bu ko defee soo ay bu ñëwee dal ci mu def lem bu bëree bëree bëri bu lem gi ñoree ñu dàq leen mën a jot ci lem gi loolu baaxal daan am nit ñi daan nañ ko def waaye ñoom xamuñ nañ ko defee dégg nga waaye man ñoom xam nañ ku mel ne sëriñ xam na ko ñoom dara xam na ko dégg naa moom xam na ko dégg naa mu waxtaanee waaye dégg waaye man xam xam waaye dara la loo xam dañ koy def mu épee si kër di def lu yëngu ba buñ fa dalee man fa def lépp ñu ne ba lépp ngi bëri ñu mën a nem ma lépp ci yomb yomb ma mm. ñu koy sabablu mm. dañ ba alaka lu xam ne def di jafe waaw xaliya mm. waaw bu xam ne fexe nañ ba dalal ba yëngu wañu ma ko am ren wa taxarata da nga gaarlu li xaliyatin ci boobu xaliyatin bu guraaji fiya jëlal tuut sii hmm. waab haa jortu ko laa xataan du jumte hmm. wala isabata du jubal hmm. bul jàpp ne xañ la bul jàpp ne defal la comme lii lañ man xañ nañ la waaye lii fa ñu soxla jarul nga ne yàqal ci wut beneen waaw xaaral lay jógee dañ man rek waa ba jot su ko laqataa du njuumte hmm. bal gis ne ñun hmm. hmm. wala isaabata du jaagee ni jubal bal gis ne lii jar na ñàkk a jaari feneen fo yaakaar su soxla fa jaw mu wàcce qul lahum seen lu néew la mansilata al kursi wàcce ñoom nag liñ ko jox de ko xeeb mm. moom mu naw ko bu baax a baax a baax mm. ndax itam nit gannaaw mm. da nga koy yaakaar da nga mu jokkale xaboole sant ba mu ko jëlee mu sant su ma wal su ma tawalla mu dëdd te jurrum bi dana mu diri siqahu wàllam wayen habu dana mu giiree bil xabti ci dajitu turux ko ay yoonam muy dem na dewat gi ak wet gi mel ni daal kuy def taxet di dox dox bu métti daal qaala wax na al muxbir bi haatihi hikaaya te mooy xaari mu ne ko suubira mel la lees li ñaan ma ne annahu muhilun aji jàll min al hiliyatihi takayam mutasanni on aji bent la fi mu seeti yi ci dox yoon mbir mi daal ni lu mu panam leen ni mu doxe gi moo dem mu ne fan na hattuma bu an haji mbirom dana soobu min haji wo soobu waaye ma jël topp ñu ko waaq boo dana xeñtu adrajo ay jeexitam muy ay yoon dafa topp rek woo woote moom yal xamu nii dana ma génne ku sa ran ci ro hmm. te léegi mu roog ma cat si ma nii te dana ma yaatal hajran ci tomb hmm. boole foog mas ko ma lool hmm. hatta isa xalaa ba biixee a tariqu yoon waam kana te jàppandi attaqiqu dëggal bañ demee ba sori ñi muy nëbbu xam ne fi mu ne lu waay melee war ko mën a wane nazara xool na ilayee jëm ci man hmm. nazara man xool ak koo xam ne xasa bég na hmm. wa basa te mu tàllal xar kanam hmm. wa ma xadam wa ma xadam mu sellal laye biir baadama xasa ci gannaaw bu mu jaay mu xool ma xoolinu may ma aajo xoolinu fireeku xoolinu ko xam ne xëy na doon na lal fanaan ba gis na ni biram réussir waaw nazara xool na ilayee jëm ci man nadara man xoolal ku xam ne Hafsa bég na wa basa te mu tàllal xar kanam. wa ma hada te mu sellal layi biir. ba dama Hafsa ci gannaaw mu jaay. wa qaala mu ne ma. inni man. lii xaalu ka danaa la jortu. aha xurbatin ngay borom tumaranke. wara ida soobatin daraja sa ko ando. yore li may niru. boo xamoon am na loo gën a baax yow de hmm. na jàpp ma ne fii miin nga fi hmm. la ka ndax ñaan na la hmm. fii rafiqin ci àndandoor boo xam ne yar fukk dana yërëm mooy dana dem ndànk békk ci yow rek ko mooy lisi moom wa yor fekk te muy la jëriñ ir faa ko mooy lisi moom soo bëggee àndandoor bu la du sonnal te xamal la jëriñ ko afaal la kanda ñaan na la fii rafiqin ci àndandoo boo xam ne yar fukk dana yërëm mooy def ndànk bi ka ci yow mm. wayur fukk te dana la jëriñ mm. wayan fukk te dana suturaal mm. na fa kun fax na bukaay la tëj fal alayka ci yow day nekk sa làqookaay wayun fukk te dana la dunda koo xam ne day nekk sa làqookaay du la sonnal te amal la jëriñ bëgg xaalis ne ko xultu ma wax la woo ñaal ko ma ne ko eh law asaani xellan te woon dikkal ma hada rafiqu bele hana loor law asaani xellan te woon dikkal ma attawfiqu dëppale ah boobu sans que su mu kaa fa fa xaal mu wax lii ñaala mu ne ma xal wa jël xam nga ko ba pare parce que bit ñeetul su nekkee xam ne xam nga luñ la ñëwee rek moo ci def hmm. parce que bit ñeetul wastakramta dajal nga karim jël nga karim fasta bit xeewu dajal nga karim bi nga soxla mooy ja loolu la wax ma bayi ka topp mu ree ma liyan mu dee ree loo yàgg yàgg mu dal de mellowu mu feeñ lii ñaar ma basaran bir moom muy nit sawiyan ko daaji hemo gannaaw gi mu taxaw temm génne ni mel mm. di nit ku daraja mm. tamassala mu melloo mooy mu beeñ mm. di ñaan ma ba saran bi noonu muy nit sam yen ku daa yéen bay saa ci metteel woom seexu naa suñu góor gi la asaro ji kay ko yug suru ligaa bu seydin la laa xala bata de jàllar degu bi gis mi di nekk jëm moom dara jot ko wala subaata di benn lënt fi was mi ci mandarga dara daal yemoo ko tam xamee dara mm. soppeeku mm. fa baritu ma bég bi luqiyatihi ci dajeeg moom ma mm. kontaan ci li ma dajeeg moom wa kadimi laqwatihi ak fen ak xopp si bali jam ak ñàkk gim ñàkk a doon ko xopp ku wér la kontaan naa ci yooyu waaye sikka naa ko nag dëgg tappale waxamantu ma yittewoo bi malamati yi ci yeddam xalaat sooy maqamati yi ci ñaaw ak taxawaay bëgg ko yedd ndax yi muy def te jekkul ci moom fasaha mu hubbi faahu gémmiñam mu nga bu baax waan sada mu sadda qabla an alxaahu jekkaw mu ko yeddal balaa ma ko dawdal mu ne zahartu bi rassin li kay ma yuqaal faqirun yusajji saman al musajja waasaatu linnaas an qad burijtu wa kam naala qalbi bihi ma tarajja walaw la rasaasat lam yursali walaw la tafaaluju lam alqa fulja mais loolu la wax saatu peeñee naa bi rassin ci melo wu rab li kay ma yuqaal ngir na waxeet ne faqiirun ku ñàkk la yu sajji dana mu màgg asamaana jamono al musajja bare buñ néewal yi dama leen fa nee melo wuraw ak ngelaw ne kii de sonn na waataatu feeñal naa lin naa si ñaar nit ñi ne an naga luy mbir xat polis su joteef na ma ci feebaru faali dama wan nit ñi ne feebaru faali moom a jot fakam naa la bëri na bu amee xal suma xol bi ci ma tara jaale bu yaakaar wéru ma fa bëgg ni la tara ji daa ngay bare de walaw la rasaata su lu doon ràpp gi lam yu sëgg bu yëre mel ni ñaan su doon yëre yu ràpp yi danaa ci jekk di sonal kii moo ñu tane ñaan walaw la tabaalu ji bu doon faalis faalis lu gi mel ni ko abi paralysé hmm. dama alxat duma daje pour del fañu waaye summa qaala topp mu ne ma inna woon ne ko lii hmm. lam yëpp xaddesatu li ñaanul bi haadihi ardi ci sile suuf hmm. ma taman sàmm waaye wala desul itam fi aali ajin suuf si man man xamam waaye fii day moom yaakaaruma ne fu may mën a yow bi fekk daal. taxul sama yaakaar bëri ci ñoom. waaye xadasa tulli ñaan na bi yaa biir xam ne ci bérébu. markaman sàmm waay. wala de tulli tam fi aali ay ci ñoom suuf si. man na man xamem. fa in kunta boo nekkee arna bi xam ne ànd loo. su dee bëgg nga ànd ak man nag. kon fa tariqa tariqa suuf yoon. mu waral bii buñ ko baax. ñu ne asamaan bi ñu kontaan. Hmm. amaa nga ca. Hmm. parce que naa ñu daal di min haa tukkee ñu suuf soosa la. Hmm. mu tëjee si day di mbir mi di ñaari ngay bedd. ñu naan di ñu ñaan rek. ànd bu keneen. waaye xaajoo bañ na. lu ci teg war a foktoo ma àndaale moom. maa muy ni ñaari xam. ak day di ñu dafay mat. maa doon ñaari ak dara maa ngi wa kuntu nekkoon naa di dogu ala takaru ci fu ma àndaaleeg moom maa xestu fekk maa ngi dund mm. dama doog wax ne fekk maa ngi dund duñ xaajo waa mm. ba dal di bañ addaru jamono mm. al musit tujulaa ji tàggale waaye addina ndeka moom lu tàngi dañ tàggoo baax na ko beneen yoon incha allah